salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan GMT TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar muy seen bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji di wane liggéey bi nga xam ne moom la waa daayira Moukhaddamatoul Khidma di taxaw ci biir jumaa ji tey jii nag di le 29 ci ñaar fukk fan ak juróom ci weeru koor gi dajeeg liggéey bi nga xam ne moom la daayira Moukhaddamatoul Khidma di def eh, ñu ko waroon di tëj eh, tëj gi nag eh, niñ ko baaxoo defee rek dañuy xool mbooleem euh, ñi nga xam ne ñoo nekk euh, ay association ci biir dëkk bi ak ñi nga xamante ne bi ay daayira lañ ak euh, képp koo xamante ne bi daal yaa ngi yëngu ci loo xamante ne bi ci mbirum sëñ bi la ñu woola ngir bokk ak yow liggéey bi tey jii nag ñu woowoon waa comité organisation bi nga xam ne moo yor màggalu Touba ñuy ci jiital Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamante ne bi mooy Serigne Bassirou Abdoul xadar Euh, ñu koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu dëgëral ko bu baax a baax ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bi euh, tey jii nag ñoom ñëw nañ fii ngir euh, seetlu liggéey bi nga xam ne ak seere liggéey bi nga xam ne waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñi ngi koy def muy ay waxtaan yoo xamante ne bii dafa jëm ci diine ak ay bernde yaram yoo xamante ne bii dañ koy dogal mbokki jullit yi nga xamante ne bii ñoo nekk ñooy ñëw ci biir jumaa ji ak fuñ mën a jóge kon dañuy jox sëriñ Alaaji Mbàkke bi nga xamante ne bii mooy wax ci turu comité bi ñu jox ko kàddu gi mu wax li nga xamante ne bi moom la gis ci fi nga xam ne moom la leen daayira bi invité woon ak mbooleem seetlu yoo xamante ne bi seetlu na ko ci liggéey bi kon sëriñ Alaaji <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ci turu sëñ Seex Basiiru moom sëñ Abdou Xaadir mi nga xam ne moom moo waroon a ñëw fii teewal fi boppam ànd ak délégation bi waaye ku ne xam na ne xat-xat yi mu nekk eh, eh, da ciy am ngànt mu wax ko sëñ Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur bi sëñ Ousmane it ay kilifaam am fuñ ko yebal mu wax sëñ Abo moom sëñ Moustapha Xasaayit mu jiite délégation bi ànd ak waa comité d'organisation bépp ñu ñëw e, seere liggéey bi nga xam ne moom la waa daayiratu xidma liggéey ci weeru koor bi te ñëpp rafetlu ko ka ca jëkk di Seex Muhammadul Muntaxa yal na fi yàgg te wér am ci mbégte lool ba yable fi yabal fi sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir mu ñëw ñaanal si mbooloo mi doon liggéey E, sëñ Abo mu ne naa wax ci turam ak ci turu e, comité d'organisation bi nga xam ne Cheikh Basirou moo ko jiite di leen xamal ne Cheikh Bas nee na e, bégoon na démb waaye tey nag la gën a bégati ndax won ngeen ne ko li sëriñ bi waxoon ne sëriñ bi amul tànki gannaaw yooyu kanam la am waa daayiratul xidma taxaw nañ ci taxawaay bu dëgër liggéey ci liggéey bu mucc ayib boo xam ne ñëpp rafetlu nañ li ñu fi gis nag soññi nañu nun waa comité d'organisation ndax booloo gi ngeen booloo ak ni ngeen bennoo bàyyi seeni kër ak seeni yitte weer amu ci kenn koo xam ne bi nga xëyee jaaraat nga sa kër ba ba ñu tëj jumaa ji loolu nun danañ ci danañ ci jànge nun waa comité d'organisation mi nga xam ne nun lañ dénk liggéeyu màggalu Touba nu nu dollee takkaat sunu loxo saay xam ne sëriñ Touba kat waaw euh, ñu xam ne euh, liggéey liggéey bii nga xam ne moom lañu moom la ñu sumb sumbal ko sëriñ Touba waaye waa daayiratu Muxaddamatul Xidma nag am ci taxawaay bu rafet rafet bu rëy a rëy boole ko ndax ñi ngeen gis ñëpp ñu yor liggéeyu Muxaddamatul Xidma ñi ngi ci biir commission eh, comité d'organisation màggalu Touba ndax lépp luy taaral di boroomi xam-xam ca la ca la ca dugal ko ci biir commission yi commission bu ne waa mo Moukhaddamatoul Khidma ñi ngi ci biir kon sëñ Abo nee na ci liñ ko yónni woon gis na fi lu gën a lu gën a dollee dalal xelam gën a dëgëral ak taalubeem gën a dolli aw fitam ndax lii kat day liggéey boo xam ne ñépp la war liggéeyal Serigne Touba moom amul ku mu ku mu warut ndax ak jaamu yàlla la te sëriñ bi nag boo ko lebalee guddi moo boo ko lebalee ker mu fay fayal guddi kon sëñ Abo nee na ca la nga la ko kilifa yu yónni woon bi mu ñëwee moom ak ñi mu àndal seen xel dal na mu ànd ak sëñ mu sëñ Mouhamadou Moustapha moom sëñ Moussa mii nga xam ne kilifaama ñu ñëw ñoom ñaar ñu ñëw jëmmal jataay bi teewal fi kilifa yi sëriñ Abo nee na kon eh, mi ngi ñaan ci maamam yàlla nañ ko teewaat na gën a déwén te kenn bañ a manqué di ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te liggéey bii mu sumb yàlla na ko sa borom àggale ci loxoom te ba mu yeneen ba ak ak ak rakkam yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam di ko jàppale ndax sëñ Muntaxa kat fi mu taxaw ñëpp dañ koy fay bor ndax lii moo ko leble woon. gannaaw moo ko leble woon nag mbir mi ñëwoon ba dugg ci loxoom kon murid yëpp war nañoo yeesaat jaayantewaat def luñ man ak luñ mënut ñii nag waa daayira Moukhaddamatoul Khidma moom ku ne xam na ne lañ nekkoon moom yokk nañ ko kon nag nun waa comité bi sëñ Abo nee na nañ laxasuwaat te tàmbali bi gannaaw wari nañu nañ tàmbali nag fii ba màggal gi nun amatuñu jot lu dul fexe ba taxawu màggal gi ba màggal gi bu ñëwee eh, bu melul bu melul nii na raw na raw yi fi fi jaaroon nee na loolu lay xaar ci nun te loolu buñ koo jaayantee danañ ko man kon nag nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal Seex Basiiru liggéey bii ko sa ay kilifaam dénk yal na ci am ndam ak Sëriñ Ousmane nu nekk seen ginnaaw wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Alaaji ci kàddu yu rafet yu am solo yooyu euh, waa daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi ak euh, boole gi euh, mbir yi muy benn ku ne xam na ne mm, liggéey bi benn la lii wane ne benn la rek mooy daayira Moukhaddamatoul Khidma yor nañ ab pàcc bu rëy ci liggéey bi nga xam ne moom la comité bi di def kon loolu day wone ne rek liggéey bi sëñ bi lañ koy liggéeyal sëriñ bi lañ koy liggéeyal te euh, moom rek moo ko jaral liggéeyal ñuy woy ñaan liggéey bi lépp moo xam ci jumaa ji lañ koy defee wala ci lu lu ko comité bi di def lépp sëriñ bi nangu ko ndax sëriñ bi day ku neex a liggéeyal la ndax dalay day day nangu sab liggéey jàppal ci boppam ba pare bàyyeele li nga xam ne mooy sag bi kon ñu ngi koy ñaan mu nangul ñun lépp te denc ko foo xam ne yàq yëggu fa kon ñoo ngi sant mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo ñëw te teewal fi comité bi di ci jiital sëñ Abo noonu nga ko waxee moom mi nga xam ne mooy secrétaire général u comité bi ak mbooleem membre yi comité bi ñi nga xamante ne bii ñoom la àndal euh, li tàmbalee ci sëriñ Afiya Bousso al imam ba ci sëñ Abdoulaye Bousso mi nga xam ne mooy secrétaire général daayira bi ñi ngi yëkkati ak cant di leen ko jébbal di ko jaarale sëñ Abo ak mbooleem membre yi comité bi kon ñoo ngi wàcce foofu suñ kàddu di leen sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh